ah dama ni bisimila ku doon laajte faali ngoye ngi nii seen produit naturel xarañ 100 pour cent bio yegg si na jaaxle jeex na de produit la bu nga xamante ni ñu ngi koy defaree a base de plante teg si dama ni la amul benn effet secondaire xarañ rek ci yokku kattan ak cawarte éy xarañ benn jeeg mereetu fi jëkkëram kon yow mi am jafe-jafe se néegu sëy wooteel kaaw ci numéro yi 70 669 69 29 walla boog 77 317 03 41 ak xarañ ñëpp ay xarañ. mbokk internet yi ñoo ngi toog ki nga xam ne nii Oulita kenn dootu ko présenté si réew mi Oulita borom savon yu baax yi alors tey nag mu toog ak kii di xaytam Sali la diva. Mm. Oulita yan témoignage ngay def ci sa xayit ñu bàyyi nga nuyoo. waaw ginnaaw bi ma jullee ci yonent bi sant samay ñaari waajur maa ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi ma fekk di nuyu tamit diva moom mi ma fekk muy sama mag nee naa du sama xarit sama mag la sama conseil yàlla sama mag la nga koy déglu waaw te la moo nekkoon say tànk fii ba tey ñëw mu tombe maanaam tombe tombe lañ tombe du question quelque chose bi nga xam ne dañ ko programme nga ñëw seeti sa mag mhm. waaw dama daf ma jaayoon meuble meuble yi rafet après ma gis ko ma gis ko mu piblier yeneen mu nekk en promo moo tax ma ñëw pour jëndal sama papa tamit ay meuble ndeysaan dégg loolu maanaam da nga jëndoon ay meuble dama jëndoon meuble yàggul mais ma gis mu dugal yeneen nekk en promo ma woo ko ne dama bëgg a jëndal sama papa ay meuble meuble yi rafet meuble rafet lu muy jaay tamit <laughs> daa rafet maanaam lu muy jaay yeneen xale yi jaay ñu ko waaw réew mi moo teg tànk de ci meuble ak mhm. déco si nga seen la. suñu relation mooy relation jàmm ak relation salaam mooy ma gis lu baax ci moom mu nekk koo xam ne référence la mm-hmm. man sama référence la mm-hmm. parce déggoo ko ci détail déggoo ko ci lu ñàkk la déggoo ko ci dara mm-hmm. te pourtant ñoom ñu fi nekk di wax lépp moom lu mu am peut-être sax ñoom amuñu ko te mu ngi toog nekk ci kawam di liggéey kon loolu day nekk sama référence daal nekk sama yaay nekk sama mag parce nee naa la man nit sax duma gis ci palaasu nit fu mhm. fuñ ma invité wul dew ma mais moom ñeme naa ko mhm. moom ñeme naa ko te xam naa ne moom nitu sutura la mhm. looloo tax ma ñeme ko su ma amee lépp lu may def dama koy woo wax ko ñu waxtaan si su ma ne defal nii ma defee ko parce que xam nga sama yaay nekku fii aw ma fi mag aw ma fi dara am naa nag ay famille mais peut-être ni ngay mën a waxee ak koo xam ne peut-être mën ngeen euh, koo xam ne euh, mat na la mag te nëbbu la daraam yow tamit doo ko nëbbu daraam da ngeen di waxtaan peut-être boo amee problème wala dara boo ko waxee dana lu mën a gindi daal wala dara loolu moo tax ma gis ko tamit mu nekk royukaay nekk référence kenn dégg ko ci réew mi kenn dégg ko ci lu ñàkk fayda looloo tax ma ñeme ko. moom moom du TikTok du moom day direct de day direct bu baax sax day direct de waaye xam nga rek. fu lëggee bëri rek mm-hmm. ak personnalité bi moo tax looloo tax ma naw ko te man xam nga man moom peut-être loolu lañ ma yaree yarewuñ ma ñàkk fayda yarewuñ ma manquant du ma dem place kenn comme ni ma ko waxee doo ma gis place kenn fuñ ma invité wu du ma fa dëgg sama tànk mm-hmm. man moom dama koo ñeme mm-hmm. loolu nu ma gis ci moom nag moo tax ma ñeme ko mm-hmm. Euh, ku la xam xam la si jaayum savon bokk nga yow tamit si ñi xam ne ñoo teg tànk si wàllu jaay concurrence bi yow tamit nan lay demee sa koor sa côté waa jaayum savon bi mooy <coughs> nit booy jaay da ngay jaay loo xam ne tamit ku la xool dina ñemee ñëw jënd. Mm-hmm. yaa ngi comprendre man samay saabu jógewu fi oh, pardon. <coughs> saabu jógewu fi Côte d'Ivoire laa koy commandé mu ñëw. yaa ngi comprendre mm-hmm. ku nekk li ngay jaay rek ci nga mën a xam yow man sama jaay laa xam xaw ma jaay keneen tamaa ci sant yàlla. Mm, dégg na am ñoo xam ne moom jàpp na ni ñoom ñoo dàq jaay savon seen savon moo gën a baax. waaw ku nekk sa marketing rek ngay def ñoom dama leen ci mere mais ku nekk sa marketing rek ngay def hmm. loolu kese la mais mu mais mu mel ni jàmb ji mu ngi dox sa côté parce que nga hmm. ñëw jënd jëndaat meuble euh, te beneen wàllaa gi dañuy dégg yenn saa ñu ne ñoom rek ngay jaay kenn jaayul hmm. euh, te yow sax nekkoon nga fa génn mel ni kon sa côté mu ngi dox ah ñu ngi sant yàlla moom mu ngi dox bu baax sax alhamdulilah moom boo bokk si ñi nga xam ne dañuy voyage di ko wane mais tamit moom moo ngi jaay xale yi jaay daa am ñuy voyage di ko wane. waaw ah, am na jaaykat boo xam ne bu ñuy voyage dañ koy wane lii ñëpp nga xam ne ñoom ñoo ngi dem. ah waaw loolu ku nekk ak sa sa vision de vie la rek. ku nekk ak sa vision de vie la. yaa ngi comprendre ku mu neex voyage wane ko mais l'essentiel jaay bi mooy importance. nga am vue ak ñàkk vue yaa ngi voyage voyage wala l'essentiel ñaanal yàlla li ngay teg muy jar. te loolu la ñuy ñaan yàlla te yàlla mu ngi ci suturaal bu baax kon dañuy sant yàlla. mais da nga wax léegi sa biir wax mu mel ni euh, Diva euh, <laughs> man Diva Saliou laa xam ak li ma gis ci moom nee naa la man doo ma gis place n'importe qui. Mhm. nit dafa may woo sax ulita ñëwal laay du ma ñeme parce que réew mi moo toj mhm. mais moom mooy nit koo xam ne dafa am sutura. yaa ngi comprendre dafa am sutura te nit bu dëggoo boo ko xoolee danga koy xam nit buy jàppale ay nit boo ko xoolee danga koy xam damay gis muy def ay social yu bëri mu koy def te loo xam ne peut-être wanewuñ sax lépp mais moom da koy def yaa ngi comprendre Diva Sarr bi dara mayu ma dara yaa ngi comprendre mais damay ànd ak nit ànduma ak moom ngir alal ànduma ak moom ngir dara te man du sama àndandoo sama mag la sama yaay la su ma conseillé su ma gisee may def n'importe quoi su ma nee Oulita bàyyi damay bàyyi. yaa ngi comprendre kon dama ko bëgg te yàlla tax def ko référence. Mhm. parce que li ma gis ci moom la fulla bi ma gis ci moom ak nangoo liggéey kenn déggu ko ci dara. Mhm. à chaque fois bu ñu toogee damay wax sam papa wax yu bari ci moom looloo tax sam papa bu ma ko waxee sam papa kilifa la. Mhm. dafa ñëw ànd ak man ànd ak man pour ñu xool te xam na ni sam papa nekkuma ci lu sama papa du lu tax mu ñemee ñëw fi parce li ma ko wax ci moom la mm-hmm. ak li ma gis ci moom su ma ko wonoon su ma wonoon leneen tamit loo xam ne triché la wala dara du ma fi ñeme teg sama tànk parce que dama ragal réew mi da ngay dem place kenn sax ñu ne ñëw na fi de lii li lii nga génn fa ñëw na fi maa ko jox li maa ko jox li mais moom dafa am sutura mm-hmm. nit ku am sutura boo ko gisee da koy xam tamit dama xam nit mm-hmm. alors est-ce que ñuy jaay savon à part la diva am nga si ñi nga xam ne nii yow tamit ay xaaj ngeen ñuy jaay savon à part Koumba Ndiaye loo voté te moom nekkul Dakar mm-hmm. mu ngi Koumba Ndiaye mu ngi Mbour mm-hmm. à part moom daal fii aw ma fekk ñoom sa relation yu bëri de. non sa relation kenn si jaaykat sama à part mooy. à part Koumba nekkul dakaar mu ngi Mbour à part moom awma ma ceeg relation ak kenn. alors boo déggee si si wàllu jaaykat yi des fois ñuy génte ay audio ay ay ay audio mm-hmm. maanaam di werante seen biir. loolu nu mu def yow. ah loolu de. peut-être ñoom seen xel foofu la toll rek ndax lu nekk rek euh, peut-être nit ki doo ko juger ci dara mm-hmm. peut-être xelam foofu la toll ak pression tamit dafa metti mm-hmm. tuuma dafa metti wax dafa lay perturber mm-hmm. ba tax yenn saa yi da ngay jaxasoo di def loo xam ne parce que man dal na ma yenn saa jaxasoo woon naa fi di def loo xam ne sax du sama jikko ma ñëpp dañuy xam ne kii melul nii kii mënul wax loolu ma xam ne loolu tamit dem naa ba rëccu ko waruma ko woon def parce que melu ma noonu ma dem ba xoolaat xoolaat sama entourage waxtaanaat waxtaan ak sama xel ma dem ba bàyyi yooyu yëpp situation la rek bu jeexee jeex na. kon ñoom dañoo toll situation boobu. yéen a ngi situation boobu situation la rek parce que ku nekk mën na fa toll tey yow mi toog tey mun nga fa toll kenn ñaanu ko yàlla. situation bu amee bul juger nit ki. parce que pression bu mu koy fekkee tey mën na def loo xam ne après da koy rëccu. situation bu amee rek da ngay xam ne nit ki situation bi moo tax mu def lii mais du bon wala dara. xuli hmm. hmm. euh, xamuñu nag ragal milieu bi nga nekk milieu boo xam ne nii milieu bu coono. Hmm. nga dem ba ci biir nekk en retrait lu waral loolu. nekk en retrait nekk en retrait dafa am looy su reculer quoi wala reculer ah dama dem ba ci biir ma reculer. waaw maanaam man déggatu la ci yenn yenn. détail wala dara ci yeeg si xuloo yeeg. parce que autant ku la di ragal ku la ku la rimbax da nga ku la rimbax ci tiktok yooyu da nga bàyyi loolu. waa loolu moom dëgg la parce que moment boobu noonu euh, moment xuloo la moment xuloo bu ñëwee da ngay xuloo nga wax li nga wax sa dëgg wax li nekk ci yow bu jeexee nag nga focus ci leneen mais xam nga kenn du xuloo rek di jëmale suba da ngay jëmal nekk déema lijjant sa waa lijjant sa avenir lijjant sa bopp nekk si leneen mais loolu rek nekku dañoo bon wala dara non mais mais naka hmm. nga doon dundee Sénégal demal sa bopp naka nga doon noonu la fekk ñu naan Oulita fii Oulita jàmb saabu bii moo def lii moo jël lale naka nga doon dundee loolu moo lan non tuuma yooyu moo tax tey ma egsi fii naka nga metti woon na nag mais tuuma yooyu moo tax tey ma mën a toog a tey Diva Saliou amoon na nu ma doon mal ma nekk vaurien duma ma liggéey tuuma bëri na ci réew mi yaa ngi kon ku nekk lañuy ñuy tuumal mais tey ji bu tuuma bëree bu bu der yàqoo a aajo faju bu tuuma bëree tey fexel ba prouver dara ci réew mi nit ñi xam la xam nga foo ne Oulita ñëpp xam nañ ko yaa ngi comprendre après damaa pare ci loolu damaa focus damaa liggéey yaa ngi comprendre moo mën a tax tey ma toogal tey Diva Saliou. parce que waaw li gën a tax ma euh, continuer sam ci la bokk sam papa ji toog ci la bokk parce que demoon naa ba ne damay bàyyi tiktok bi yaa ngi comprendre ma tudd sam papa ne ma jugal looy ragal jugal nga liggéey looy ragal jugal nga live poussé ma sa diw yi sax jeex na demal nga defaraat diw affaire yooyu di ma poussé ci liggéey bi kon tey jii su ma yéegee fii grâce a moom la mun naa ne grâce à moom parce que man xale laa tollooguma fu may amee sax bay ñàkk ñoom lu ñu am tey nii tollooguma fa mun naa ne peut-être su ma ko yàlla demee ba may peut yàlla moo ma ko may mais maa ngi doog a jug marqué naa sama empre nit ñi xam nañ ma loolu sant yàlla la maa ngi doog a jug am naa sama boutique amaana âge bi âge bi ma toll nii ñu bëri ñu ngi fa amuñu boutique kon sant yàlla la yaa ngi comprendre maa ngi liggéey maa ngi daan dool tàll tàllalu ma kenn loxo du kenn ku ma tàllal loxo. Hmm. kenn jàppalewu ma ba may ubbi bitik ku du sam papa. Euh, kase. Euh, yaa ngi comprendre. waaw ñu ngi lay fay. bi euh, nga wuti. Mhm. macha allah. xool caméra yi rek bàyyi ko déglu mhm. mais dañuy dañuy dégg wax na ko sànq ci explication bi. Mhm. dañu fi indi ay ay yu bon ci buntu place am. tey boo amoon benn conseil boo koy jox. lan nga koy wax premièrement deuxièmement bi. kii di mën ko koko. dafa def benn live di dal seen kaw yéen ñi nga xam ne da ngeen di jaay saabu ak kii nee na ñu ci yéen ñu ngi koy def te amul maîtrise bi da ngeen di yàq deru jaamur yi mm-hmm. da ngeen di yàq koo jaamur te boobaak léegi amul kenn ku jóg c'est-à-dire défendre euh, di tuuma mm-hmm. Mm-hmm. da ngeen koo ragal wala qu'est-ce qui se passe lu xew kuy mami kooka ko oh, xool xool xool xool kii jox ma jox ma boraal kii moom la muy kooku eh, yaa xale kanam xaw ma xaw kii de xaw ma ko. ko kooku yow siiw na. léegi la xamu ko kii dëgg yàlla xaw ma ko te ku ma xamul du ma mën a waaj a sori. kii pourtant daaw nekk nag ci ci weer bi. le 8 mars. ko. nee na premier waaw waaw comme ça dañuy gis à chaque fois à chaque. conseil bi ma koy jox rek mooy loolu bu mu ko xool parce yàlla moo la may li tey du nit moo la ko may mm-hmm. kon tey nit bu taxaw bëgg bëgg koo yàq kon yàlla moom lay yàq mais yow du la yàq mm-hmm. parce la yàlla moo la may lii mm-hmm. loolu rek laa am ci lu ma koy wax loolu bu mu ko sax focus ok bi nekk bés boo xam ne ñeen a ko moment ah. mm-hmm. seen journée la euh, ban message ngay lancé à travers les plateformes say mbokku jigéen euh, bu njëkkoon jigéen dañ koy doon si suñu yaay xool jikko bu rafet bi ñu am dëgg la seen biir nag jikko yi ñu ngi fi baax ngeen bëri ngeen kii. Mhm. mais yàqante bi seen biir ban message ngay lancer say mbokk jigéen ñu moytu loolu mooy ku nekk rek na focus ci sa liggéey bañ a xarit ba ñëw àndandoo yaa ngi comprendre kenn bañ la xamal dara. nga ut nga focus ci sa liggéey bañ a ut xarit bañ a ut ànd parce que boo xoolee ba ci biir lépp lépp ay xaritoo fii xaritoo fee waxante fii waxante fii. focus boo focusé sa liggéey rek doo am jot boobu. man ci laa nekk. est-ce que tamit nekkul dàggasante boobu xuloo boobu moo tax maanaam Sénégal di leen bàyyi xel di jënd seen ay produits. ñaata nit ñoo fi nekk xuloowuñu nit ñi xam ne. di jaay bu baax di jaay lu baax. ku ci mel ni Jojo Glow Skin. da koo gis muy xuloo. du xuloo xuloowul te <laughs> man Jojo Glow Skin laa xam de dama ne. la jàngal baax. ku ci mel ni ku ci mel ni ku ci mel ni Jojo Globe pourtant xuloowul de pourtant mi ngi jaay. mooy Cobra day xuloo man wax dëgg yàlla tur yooyu nga may wax noonu yëpp man ñu ma invité non xaw ma leen non non xaw ma leen de non non xaw ma ko xaw ma ko dama ne par exemple exemple laa la jox rek pour ñu xuloowul ci réew mi laa wax de ñu ñu fi nekk di xuloo di rëf bi si réew mi ñoom diva ak ñan ñoom diva ñoom joojo comme ni ma la xam nga man mm. sama lu may suivre TikTok sax bëriwul man suma laay bi génn naa dem sama yoon mm. yaa ngi comprendre dama ne ku ci mel ni joojo guloo pourtant day jaay diw comme ñun mm, te du pourtant déggoo ko ci benn détail de mm-hmm. te pourtant macha allah benn place am la yor mais pourtant xoolal lu nit jënd mën na ko jënd pourtant déggoo ko mu wax mm-hmm. kon donc ñooñu ay yi lañu ñooñu ay kii lañ ay sœur lañ yoo xam ne war nañoo roy ci ñoom. waaw lan mooy doon projet pour dernière question non xaalis bi <laughs> mooy xaalisu chambre à coucher bi. ma ne ko yaa am jom kay sama nag ma ne ko yaa fay si kay likit nag xaalis bi moo nekk nii mooy xaalisu Sambra Kousa bi te bu mu jëndee matul 10 jours waaw waaw tout la ma woo un million tout diva dama bëgg nga jaay a chambre à mm-hmm. ma ne ko uli ban chambre nga bëgg mu ne ma danga am gu loo ma choisiral baax na boobaak léegi matagul sax trois semaines tey nag mu ñëw eh, ay waay ma ne ko million il est sorti million a ngi <laughs> tey nag mu ñëw ànd ak papaam def li doom bu baax di def mm-hmm. def li ñëpp bëggoon defal seen ay waajur ñëw ne ma Diva dama gis ngay promotion dama bëgg euh, chambre à coucher pour sama papa mm-hmm. ma ne ko ñëwal mu ñëw nag indi indi indi birig ne bëgg a jëndal papaam te papaam la àndal. te bu mu jëndee yàggul matu sax 10 jours. non yàggul yàggul parce que gis mm-hmm. nañ ko dugal naa ko monteel naa ko léegi yàggul. léegi nag kon dama koy monte laat. waaw dama dama damay dajji dajjiwaat. yaa ngi a yokk. waaw sama sama rakk ji nag kenn du moom. tubaarikàlla man sama relation ak sama papa mooy mu ngi nii toog sama complice la. sama papa du ñu nëbbante dara noo jooyu ma du ñu nëbbante dara. yaa ngi comprendre. même TikTok bi kaa bu amee sa sama papa dafa may woo alo kaa am na de. diw diw ak diw ak diw di wax ay sa pap moom la topp kaa <laughs> moom koy kaa ko raw man maa tax mu am tiktok nag musul am tiktok waaye nag ba ma commencé dugg ci réseau yi mu ne cëy wali ma tax fexe rek bu dugg ci topp kaa rek loolu la merci kontaan bu baax a baax encore une fois Euh, mhm. c'était bonne fête parce que ay jàmbaar ngeen ay amazon dëgg ngeen euh, fexe ngeen ba bañ ràññee leen si réew mi fexe ngeen bañ daan daan seen doole bañ mun leen tudd réew mi te du leen tudd allez da ngeen jëf kat